parce que li tax ma ne doo comprendre dara mooy seen xel yi ngeen di utiliser pour xam tey lan laa bëgg wax pour xam tey lan laa bëgg a wax gars yi Siteu démb génn na gis ngeen ko mu def genre conférence de presse am na lu mu wax ba émotionnel jooy gis naa gars yi partager vidéo bi mais nañ dem xool vidéo bi sax ñëwaat nañ dem xool ko ñëwaat après ñu dem ko quoi nañ dem xool ko. waaye bu la nit ñi yaakaaree nooy def. mënoo lu dul dimbali leen. Mhm. man weer rek bu ma ko jógee jaamu gën jaamu gën dañ koy yëg. Mhm. da ngay gis ay ndaw ñoo xamante ne dañ leen di yóbbu prison te duñ def dara ay xool nii rek neexu la rek nga yóbbu ko kaso nekk homme de gis jeunes yoo xamante ne dañuy jël alale jàmbur boo lañ laajee lu tax ñuy jël alali jàmbur dañ la naan la gaan duma la fende dañ la koy wax nii nga dégg ko dañ naan la du ma la fen deret tuuru moo gën gàcce. parce que ñoom dañuy juddu si kër xamuñu métier amuñu benn métier mais sa waay boo man bu ma toogee sama yaay dem si guddi muy ñaxtu naan man de bu ma amoon deux mille cinq cent suba ma xëy lii laa dem jënd pour xale lekk pour def nii sa ngay dégg loolu si biir noo nga koy dégg yow def boo amul dara da ngay dem sàcc wala nga agressé nga gisee nit ñoo man damay am combat man damay jël sama xaalis di def si ñoom pour nit ñoo ñëpp kenn ku si nekk pour nga mën a xam lu ma la nga satisfaire nga bàyyi lu bëri pour def la mel ni ñu dañuy yaakaar yow da ngay fëppale sa booy. Sida yaa ngi yàq émission bi. gars yi gars yi yëpp lii yëpp li bootu si ginnaaw moo bari. man damay dund coono yu métti ay coono yu laay dund man bi ma nekkee booy laa commencé jël sama responsabilité am na ñoo xam ne man maa tax ñu bàyyi banditisme man maa leen tax jabar. du ma ko cité gu mel ni Ibra Dieng kooku ab ma nekk xale ba leen dama ko tax buñ doon japp kasso sa dama ko na wax am ma ngi ñuy and dem kasso mais daf ngay do dóor yi métti pour mu mun a dem rek mais loolu yëpp dama ko dund fi am lu wala la man bi ma 15 ans lan sama papa gañ mais dama dama dund ay affaire yu bari fi walaay wala man sama gox mo mo musa ñor walaay man dama musa bañ ko xamanteni di jël ala jàmbur wala ngay def lo xamanteni ah du dëgg man dama ko mos a bañ sama laa mais dama mos a jaayante sama àdduna ne di bu dee njàmbaar moo lay rey sax da ngay téye quoi. mu dama mos a gëm lo ba coow yi ma coow yëpp ay nit ñoo tax may coow. gaay gaay gaay gaay dégg ngeen ah gis ngeen tamit li nga xam ne ờ, moo am quoi ndeysaan ak ni mu waxee xam nga ci biir wax ji sax dégg naa ci fu mu waxee ne boy yi dañoo judd ci seen kër amuñu liggéey wala affaire yooyu mooy premièrement mooy nit moom boo juddoo yaru màgg ba mënal a yor sa ñaari loxo sa ñaari tànk mën a jóg doxi say soxla war ngaa mën dem uti liggéey quoi boo yaafu seen ak ba nga xam ne loolu rëcc na la ngay continuer di jël alalu jàmbur peut yow moom ak sa xol ñu ko waxee comme ni ñuy waxee ne sa xol dafa rafet da mën a social et cetera moo tax nangam nangam yooyu baax na mais dafa am leneen loo xam ne falaa jëm gars yi déglu leen bu baax fii ma leen di waaj a yóbbu dégluwaat leen li nga xam ne moom la waxaat dégluwaat leen. naan Sonko lu muy def wala lu muy wax baax na kenn waxu ko ne baaxul mais bu mu ci boole coow. ñun xeexuñu. Mm-hmm. xuloowuñu. Mm-hmm. dégg te man gis nga jàmm gën gi ma dëkk. Mm-hmm. lu ko tàmbalee fas Mbao ba Sibs man sama responsabilité dama koy jël. fii ku fi xeex wala nga ci xuloo loolu dama ci rayanteeg ba ñu ma si dara man Siteu parce que tey bu méttee sama kaw lay njëkk a métti dégg ma ma bëgg nag képp koo xamante ne ak gox boo mën a nekk nga jël say responsabilité faral ku la neex faralal ku la neex mais ñun xeexuñu xuloowuñu parce que bu ñu xeexee xuloo suñu yaay la ñuy gaañ suñu tante yi la ñuy gaañ homme de tenue yi ñun suñu biir kër yi la ñuy dëkk kon il temps loolu mu jeex nañ politique ñun d'accord nañ politique mais ñun duñu ay politiciens te ñoom bu ñuy xeex ñun la ñuy xeexloo mais tey su ma waxee Fadal bi wax ñu ne fële la faral. dégg ngeen na ah, dégg ngeen li nga xam ne moom la waxaat jëmale ci président Ousmane ko mais waa ji nga xam ne moo teyoo toogoon ci wetam diglu leen ko nag pour ngeen comprendre objectif bu vidéo bi bu baax a baax diglu leen waa ji. ndax Siteu kàddu yu mu génne tey ni musu koo xam. kon li ñuy ñaan li ñuy ñaan président Macky Sall. nga jàppale Siteu jàppale ginnaawam jàppale banlieue bi ndax xale la yorul entreprise yorul dara ci làmb la yaakaar chaque jour muy joxe ay dépenses chaque jour mu yëkkati ay saako ceeb di ko joxe di def social fu ne kon président Macky Sall jàppale Siteu réew mi nag taluñu ay rayante xeexalal diw wala woote diw ñi nga xam si ñoom ñooy dem pour xeexloo ndaw ñi ñoom ñëpp seen i doom ñoo ngi si ay bërëb yu baax di jàng ñoom ñëpp seeni i doom ñu ngi États-Unis ñoom ñëpp seeni doom ñoo ngi feneen ñun ñun nga xam ne ñun ñooy baadoola yi ñun la ñuy fekk di ñu fëggloo suñu kër naan dem leen xeexi duñu ko nangu duñu ko nangu ñun banlieue bi duñu ko nangu xam nga lu ñu mën mu yor suñu carte ku nekk nag yaa xam ki la neex ak ki la soob nga far ak moom am nga ci droit ndax sa carte nga yor waaye dañoo bëgg réew mii nañu nañu ànd ak yar. dégg ngeen li nga xam ne moom la waa ji wax. kon yaakaar naa ne wax ju egg dof moo ko moom li waraloon conférence de presse beeg li waral jooy yeeg li waral yooyu yëpp yaakaar naa ne comprendre ngeen ko xam ngeen lan moo waral ñoom seen objectif lan la woon ci conférence de presse bi lan la woon nekkul boy yi jooy ak nekkul ay boy yi chômage ak nekkul agression yi dafa am loo xam ne moo waral lii yéen a yor seeni xel di xalaat kenn ku nekk li nga gis ne moom moo waral lii am wax leen ma ko ci commentaire yi dafa leen jinne leen am na loo xam ne wax bu egg dof moo ko moom mais fii Sénégal ñun dofuñu boo leen ñëwee ñun ngeen fi fekk parce que tamit euh, dafa xoromu quoi dafa xoromu quoi parce que xam nga rek am na ñoo xam seen xol yi dafa oyof buñ la gisee nga jooy wax wax yërëmtalu waaw ndeysaan ñu ne Siteu dafa baax dëgg la dafa baax mais man Siteu ba ma gisee ngay publicité euh, publicité boobu nga xam ne ci wàllu carte xaalis la jëm boobu laa commencé inquiété wu ci yow moo tax ba ma la gisaatee nga ñëw defaat lii gars yi nag ñoom jëlee nañ ko émission parce que sénégalais moo taam bu la gisee nga joxe mu yërëm la affaire yooyu noonu mais man gisee ma fi gars yi gisee man fi ma gisee mooy lii benn objectif la woon benn dafa am lu ñu doon viser te il faut que mu toog wax jooy gars yi attiré wu ci moom pour mën koo déglu léegi message bi mën a dal nag message bi lii la woon te li nekk ci ginnaaw nag après dinañ ko xam quoi àdduna suñu kanam mais yéen laay waxal bu leen kenn manipuler. ay jooy jooyloog yooyu yëpp mooy loolu voilà ay jooy bu mu tax fii kenn di bàyyi li nga jàpp ñun xam nañ lépp li nga xam ne moom moo war a seen conférence de presse bi utiliser leen seen xel yi nag bu leen kenn dugal ci ay émotion ñu naan saan ak ay affaire yooyu noonu góor boo juddoo yaru màgg yor sa ñaari tànk ak sa ñaari loxo say bët di gis say nopp di dégg sam xel neex demal nga uti liggéey mais ñàkk uti liggéey nekk di agresser ay nit ak di faat ay bakkan di jël alalu jàmbur après nga ne sama yaay dafa am soxla moo tax ma tuur deret moo tax loolu ban raison la jël alalu jàmbur amul raison nit ki raison bi nga xam ne moom nga ko raisonné mooy ñooñu noonu bu dee say waay lañ wala say nit leen nee leen ñu dem liggéey sa waay àdduna bi liggéey moo koy yor mais du wër di agressé ay nit après ñuy dawal ay yërmande ak ay affaires yooyu non même boo amul sax même bu dee da ngay liggéey munoo am sax amoo raison pour di jël alalu jàmbur nit da ngay reyante sa life pour génn si mais jël sa waay ñun daal nañ topp nii rek di émotion bu bu saa yi nit ñëwee waaw dugg suñ maayen ni génnaat rek ñun ñu topp ko ci loolu noonu fii lu fi waaye def yaa ko tey nañ dem liggéey leneen li si topp mooy sa affaire bi message bi man comprendre naa xaw ma nag ñeneen comprendre naa bu baax lan moo day kon sa message te yéen it jéem leen a utiliser seen xel ngeen comprendre lan moo nekkoon message bi ci jooyam yi ak yii yëpp maa ngi leen di xaar si commentaire yi. ñun nag dinañu xeex wallaahi dinañu xeex makisal Sall na xam ni du yombee noonu na jiital Moussa Fallo na jiital keneen ak na génn ay chars de combat dinañu xeex ak moom parce que du nangu mu teg ñu dëkk dul dëgg. réew mi. yéex yàgg duwul ay élection koy defar duwul watee duwul wàcce kenn duwul yéegal kenn yéex yàgg révolution rek koy defar amul leneen lu mun a defar Sénégal lu mooy révolution l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère.